suñu la soxna maa ngi nuyu ñu ngi seetaan ñëpp maa ngi nuyu tamit xalif général des Mourides ak mbokku jullit yépp témoignage ci jour bi rek mooy euh, ñu ngi gërëm euh, Sénégal yëpp. di gërëm euh, mbokk jullit yépp di gërëm sëñ Muntaxa depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccilu ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko bëggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci Pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna jaare yi nekk ci ci daara ji ku taxaw xam na foo bokk ak foo jóge ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom liggéey bii ne sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak Pastef bu mat sëkk musu ko bàyyi ginnaaw musu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna jaara la fay taxawee léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñépp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér a wér a wér a wér sëñ Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm sëñ Mustayim di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant senegal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi sëriñ Touba ak maam Jaara Bousso ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wettali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax que fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp bàyyi bu ñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn kenn kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna jaara ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax sëñ Muntaxa jërëjëf. waaw ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna jaara yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacer mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna jaare yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw waaw nañ ñu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll incha allah.